asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi na def ñu ngi leen néew bu baax di leen siyaara mbaa yéen a ngi ci jàmm alhamdulilah euh, di la fàttali yaa ngi sa canal Daraman Mobile nga fi amee seen astuce yu am solo yi euh, tey nag ñu bëgg ñëw ci benn astuce boo xam ni eh, astuce bu am solo la muy euh, localisation de téléphone mobile maanaam nan ngay localiser sa téléphone ba nga xam ni euh, en cas de perte euh, su fekkee bu euh, déclaré ji nga ko dina yomb nga jot ci su fekkee tamit yow mën nga niñ koy localiser su fekkee téléphone bi mi ngi en fonction mi ngi takk di nga xam fan la nekk beneen bi tamit di nga ko mën a sécurité di ko mën a sécuriser. Euh, beneen bi mooy di nga ko mën a yàq ba nga xam ni kenn dootu ko mën a jëfandikoo euh, dina ñaan avant tout euh, bala ñuy tàmbale su fekkee sa première fois ngay jot ci vidéo bi wala ngay jot sama chaîne ma lay ñaan nga abonné quoi abonné bokk ci chaîne bi yomb na bokk ci chaîne bi aussi li muy jariñ mooy vidéo bu ñu defaat rek nga jot ci bu bëggee bokk ci chaîne bi bu bu rouge bi nii bii bii moom ngay bës boo ko bësee daal di nga bokk ci chaine bi mu génneel la benn jololi nga bës jololi bi mu génneel la trois jololi nga dem ci ba ca kaw mooy toutes les notifications nga xam ni bépp vidéo bu dugg rek dina sonné ci sa téléphone ah boo xoolee tamit ni vidéo bi neex na la nga bës j'aime bi nii pour wane ni vidéo bi neex na la daal su fekkee tamit euh, jàpp nga ne amal na la tuuti solo am na loo ci jariñu te nga yéenee ko sa collègue yeneen yi nekk ci réseaux sociaux yi nga bës foofu mu bës léegi pour mu mën la ko mu génneel la réseaux sociaux yi nga xam ne si am nga possibilité tasaare ko fa te nga xam ne am nga ay collègue ay collègue yoo bëgg ñu jariñu ci kon vidéo tey bi <clears throat> ci localisation lañ bëgg ñëw localisation boo bëggee localiser euh, yomb na da ngay ñëw da ngay ñëw Play Store la boutique de l'internet boo dikkee Play Store wala App Store wala euh, Google Chrome sax mais euh, man nga ñëw Play Store boo dikkee Play Store nga bind ci barre recherche bi nga bind localisation localisation localisation mi ngi nii ci digg bi mu ngi nii nga bës ko boo bësee localisation boo recherché nga recherché boo recherché lii la lay génneel dana génne ay exemplaires yu bëri waaye yow euh, xoolal logo bii nii logo bi mel ni ab téléphone moo nekk ci digg bi logo bii nga xam ni lu mel ni ab téléphone mu nekk ci digg bi moom ngay xool boo xoolee nga cliqué ci kaw boo cliquer ci kaw lii la lay bindal désinstaller euh, fii amoon naa ko ba pare mu bëgg ma mise à jour ko moo tax mu defal ma mise à jour waaye télécharger la la war a bindal comme yow télécharger ko ko léegi nag boo ko télécharger ba pare nag damaa xam ne mise à jour bi day xaw a yàgg léegi nañ ko bàyyi noonu du teye ñu mën cee liggéey liñ ci mën liggéey après naa ko mise à jour mais application saa bu defee nii nag nga mise à jour ko moo gë mooy nga message jour ko mu e, mu message jour quoi nga xam ni euh, bon dara dootu ko raw ci programme day day adapté wu daal dootu bàyyi dara day adapté wu normalement di fonctionner normalement euh, léegi mën na ñëw ci application bi ci kii bi boo ñëwee ci application bi mu ngi nii. application bi mi ngi nii fii boo ci ñëwee mi ngi nii bii da ngay accéder ci biir boo duggee boo duggee application bi comme téléchargé nga ko par am nga ko léegi mi ngi nii bi nii lay mel léegi téléphone yi ngay ci connecté yëpp moom la lay présenté nii maanaam exemple bii nii téléphone bii nekkatul sama loxo bii nii nekkatul ci sama loxo bii nii nekkatul ci sama loxo bii mooy téléphone actuel bi bii ci lay connecté wu moom moom la lay génneel fii léegi euh, comme am nga lii day am luy xewlu quoi loo xam ni ba gis nga xam nga fi ni fii nii case bii nii fii fii gis ngeen daa xaw a giri fii daa giri fii daa giri gis nga ni amoo benn possibilité pour mën fee def dara léegi da ngay ñëw paramètre boo dikkee paramètre boo dikkee paramètre paramètre a ngi nii boo ñëwee paramètre nga ñëw euh, nga ñëw sécurité et localisation sécurité et localisation mooy bii boo ko bësee sécurité e sécurité et localisation daf lay génneel. Euh, Google Play Protect ak euh, deuxième bi mooy mooy localisation localiser mon appareil gis nga ko localiser mon appareil léegi localiser mon appareil ji da ngay cliquer ci kaw boo cliquer ci kaw euh, lii la lay génneel boo cliquer ci kaw lii la lay génneel daf lay génneel localiser mon appareil nga ñëw fële ci flèche bi ci kaw nii fii nii tomb bi moom ngay cocher. boo coché mu mu coché wo léegi instant bi ni activé nga kii bi euh, activé nga localisation bi léegi pour nga ñëw ci appareil bi directement rek loolu loolu moo tax ma jaar fële pour nga mën a jaar pour nga bañ a xaar ma départ tuuti dama gaaw léegi activé nga ko fii fii nii léegi pour nga bañ a ñëw ci application bi directement maanaam pour nga bañ a départ fii rek pour nga ñëw ci application bi directement rek fii nga ñëw xam xam nga application baa ngi nii mi ngi nii fii lay affiché léegi lu mu wax fii euh, localiser mon appareil ouvrir la application boo defee ni la application bi day ouvrir directement léegi su su application bi ubbee ko application ubbee gis nga xam nga ne lii lii fekkoo ko fi woon maanaam defatoon nii bii itam defatoon nii benn defu ci woon nii ñoom ñaar ah. léegi euh, comme dikk nga nii téléphone bi connecté wu na instant bi nii téléphone bi connecté fekk nag nga am compte Google ba pare compte Google bi enregistré wu ci sa appareil fekk nga am compte Google soo amee compte Google ngay mën a localiser sa téléphone léegi fi ñu toll nii gis nga envoyé na ma benn notification ni ma sa appareil bi localisé nañ ko léegi boo ñëwee ci tomb bi ci kaw nii ci la defal changer compte changer compte su fekkee da am ñaari compte compte bi nga def ci téléphone bële bee nga def ci téléphone bii fii nga koy changé fii ni ci kaw nii <clears throat> ci kaw ci kaw nga koy changé su fekkee euh, da nga ko bëgg actualiser mooy page bi dafa yàgg danga nga koy yàgg liggéey ba nga xam ni kii na maanaam toqe na daal ci misaal fii ngay ñëw nga actualiser ko boo ko actualiser mu nekkaat euh, en fonction normale léegi su fekkee <clears throat> téléphone bi ma yor nii bii nii bii maanaam fii dama ko bëgg a su fekkee dama ko bëgg a tudd am turu ma ko tuddee téléphone bi su fekkee dafa am turu ma ko bëgg a tuddee damay ñëw ci ñetti tomb yële ba léegi rek ma ñëw ci renommé ji renommé lu ma bindee lu ma génnee turu appareil bi ma def euh, daraman mobile ma enregistré renommé laay def ba defee renommé mu gis nga mi ngi nii ma defal la renommé léegi Euh, su fekkee nag euh, dañoo sàcc sa téléphone nga xam ne sama téléphone bii nii bii nekkatu fi am na benn waaye boo xam ne si jël na ko ba pare mi ngi koy liggéeyee fayu ko euh, denc ko waaye mi ngi koy liggéeyee téléphone bi mi ngi dox da ngay dikk boo dikkee ba connecté wu ci ci compte kaneen connecté connecté wu ci sa compte encore ci sa compte Google ngay connecté woo boo ci connecté woo. nga ñëw ci localisation bi boo tànnee sa téléphone day fekk nag nga tudde sa sa tour tur woo xam ne si xam nga ko quoi tur woo xam ne xam nga ko léegi su fekkee téléphone dafa ma réer damay xool su ma connecté woo ci beneen téléphone jàmbur damay moom lu mu bëri bëri ay ay appareils yu ci connecté damay wër Daraman TV ji nii rek Daraman TV mobile ji lay wër su ma gisee ma xam ne sama appareil la su fekkee fii la nekk ma xam ne sama appareil la ma activé ko su fekkee fii la nekk ma xam ne sama appareil la ma activé ko. léegi su ma ko gisee euh, daf naan ma fii nii euh, téléphone bi fu mu nekk mën nga koo soneloo fii fu mu nekk mën nga koo soneloo ma ni ko nu may def mu ne ma cliquer ci kaw bu cliquer ci kaw dafa lay wax ni la euh, téléphone bi. waaw oh, ngi sonné. léegi boo bëggee arrêté scénario yi tamit boo fi ngay ñëw man nga am nga am nga possibilité pour arrêté scénario yi voilà mooy foofu noonu léegi nag fii nii fii fii lu ci am solo la bii nii mooy deuxième bii nii deuxième bi mooy sécurité la l'appareil maanaam da nga ci bind message boo xam ne si message bi nga ciy bind euh, bu euh, c'est mon appareil c'est mon appareil c'est c'est mon appareil appareil le moi rend le moi rend le moi le moi bala moo gudd maanaam sama téléphone la delloo ma ko léegi nga dikkaat fii nii nga bind fi sa nga bind fi 11 11 59 nga bind fi 9 11 11 59 pour que moom moom mi jël sa téléphone su fekkee jubluwu ci sàcc da ko for rek su taalee téléphone bi maanaam téléphone bi lii lay bind ci kaw écran bi téléphone bi day sécurité woo pare bind lii ci kaw écran bi daan ni ko di ko wax naan ko sama téléphone di nga yor euh, su ma ko mënee delloo nga delloo ma ko daa soo ko bindalee sa numéro téléphone tam mu xool numéro bi gis ni numéro baa ngi nii mu mën la cee woo. léegi loolu mooy sécurité la fi ngay gis ni lu am solo la quoi ci localisation bi maanaam boo ci duggee daf lay génneel information téléphone bi maanaam information euh, provenant information provenant des appareils maanaam information yi nga xam ne si moo jógee ci téléphone bi léegi mu ngi ni email bi mi ngi nii email baa ngi nii dafa ñu ngi ko enregistré ci compte Google bi le 5 juin 2020 euh, mais dernière activité maanaam bi mu mujjee connecté wu ci ci compte bi mi ngi nekk 20 juillet 2020 léegi te email bii nii bii nii bu am solo la moo tax même su sa appareil réer itam di nga ko di nga ko mën a jàpp di nga mën a jàpp email bi facilement parce que boo dikkee fii rek dafa lay génneel email bi. nga xam ne email bi moom dootul la réer quoi te email yi appareil am na solo trop defoon nañ ci vidéo temps yi dépassé euh, léegi bon ci ci benn téléphone boo xam ne si di sama techno lool techno mobile a ah, vingt léegi lii laa doon seet lii nii eh, li ci li ci suuf nii mooy effacer les données maanaam xam nga A15 bi nii bu A15 bi eh, ci misaal rek sàcc nañ ma ko ma def ay recherche ay ay démarche ba sonn dem ba ñàkk ci yaakaar xam naa ne mënatuma ko jot eh, damay ñëw ci effacer données appareil jii nii fii ci suuf fii boo dikkee fii ci suuf lii la lay génneel toutes les données de cet appareil seront supprimés définitivement vous ne pouvez plus localiser ce dernier maanaam ginnaaw bi nga supprimer lii nii léppay supprimer wu appareil bi léppay supprimer wu te dootoo ci dootoo ko mën a localiser ginnaaw lii nii daal ni si l'appareil est or connexion la suppress la suppression euh, commencera lors de la prochaine connexion mu ne su fekkee appareil bi dafa nekkul en maanaam appareil bi nit ki sàcc na ko waaye. Euh, defu ci connexion nekkul di di di ci connecté wu boo defee suppression bi nii nii saa bu bi connecté wu waatee connexion bi mu njëkk defaat day connecté wu rek données yëpp supprimé wu téléphone bi dara dootu ci des waaw mu ni vous defee vous vous devez vous connect vous votre compte Google à votre compte pour utiliser à nouveau cet appareil mu ni appareil bi nag bis bu defee noonu bis buñ ko effacé ba nga xam ni dara desatu ci bala ngaa ja jëfandikoowaat appareil bi dañ ci def sa compte Google bi ñu ci njëkkoon enregistré mu laaj la de passe nga dugal ko di sool amaat accès ci biir téléphone bi sinon doo ci mën a am accès xanaa lenn léegi moom xarale yi bëri nañu e, gars yi ñu sàcc appareil tam boo ko e, yàqee ñu mën a dem gars yi ordinateur yi dajjal leen ko e, waaye teewut yow saa boo duggaatee fii gis ni mi ngi fonctionné nga bloqué waat. deux jours trois jours nga duggaat bloqué waat deux jours trois jours duggaat bloqué waat nga effacé waat ko moom su fekkee man na chaque deux jours mu fay 2000 wala chaque trois jours mu fay 2000 yow su tàyyiwul bul tàyyi parce que bu yàggee dina xam ni lii nag moom jëru ko ko quoi joxe téléphone jàmbur moo ko gën donc loolu daal euh, bokk na ci localisation yi nga xam ne si lu ama am solo la fi ñu nii su ma bësoon fii nii fii su ma ko bësee fii si données appareil bi appareil bi ma ma connecté nii données da day effacé wu dara dootu ci des su fekkee mi ngi en connexion euh, lay wax précisément su fekkee mi ngi en connexion su fekkee téléphone bi nag néewul en connexion boo ko supprimer nii euh, bis bi mu njëkk a connecté waatee ci bis boobu lay ñàkk données yi mu amoon yëpp ci boobu la téléphone am di raxasu dara dootu ci des te buy tàkk day tàkkaale ni ko dugalal compte Google bi nga ci defoon loolu xam nga ne xamu dem fay rek moom moo gisee ñu dindil ko ko ñu essayé bi euh, sama téléphone bii nag bii nii bi moom lañ bi moom bi moom moom a réeroon quoi ba léegi nii euh, ba léegi jotaguma ci gisoo email baa ngi nii moom nag ba léegi euh, bu effacé gu ma données yi parce que dama ci ñàkkagul yaakaar moo tax waaye bés bu ma ci ñàkkee yaakaar fii laay dikk su ma dikkee fii mu ne ma ndax dangaa ngaa bëgg effacer données appareil bi fii fii laay dikk ma effacer appareil bi yëpp su su effacer woo su ma toogaatee deux jour trois jours ma effacer waat ma essayé waat su fekkee mi ngi en fonction ma effacer waat waaw noonu daal yaakaar naa leer na quoi su fekkee comprendre nga bu baax ba war nga comprendre parce que euh, jël nañ ci jël nañ ci suñ temps gis nga vidéo bi ni muy gudde ni mu gudde parce que bëgg compréhension rek eh, ak ñi ñu waxal moo tax ñuy guddal vidéo yi vidéo bu gudd nag eh, dina am ñoomi sonal quoi mais nag wàññiwul dara vidéo eh, su fekkee xam nga ne sa njariñ mu ngi ci boo ko seetaanee di ci am njariñ guddaay gi du ci dara yow l'essentiel bi mooy boo ko seetaanee ba pare dina am ay ay mbir yu am solo yoo ci jëlee yoo xam ne si xamoo ko woon loolu rek mooy kii bi liy bon kay ci vidéo mooy mu gudd ba pare nga seetaan ko ba pare ni ah lii daal amul benn solo waaye vidéo lu mu gudd gudd gudd su fekkee njariñ a ngi ci biir moom euh, mën nañoo focaliser wu ci biir seetaan ko ba mu jeex takk takk takk <coughs> kon ñetti fonction yi la am mooy nga soneloo ko su fekkee appareil bi euh, dañ ko sàcc te euh, dañ ko sàcc te te bi nga soneloo ko fi nga nekk nga gaaw soneloo ko su fekkee mi ngi ci jataay bi dina sone su fekkee fii la nga sécurité appareil bi daal di bind li ngay bind ci kaw ni ko sama téléphone maa ko moom woo ma ci sama numéro bi jox ma ko mooy deuxième bi troisième bi mooy nga effacer données yi téléphone bi nga raxas ko ba mu set wecc wecc dara dootu ci des loolu mooy localisation mais nag euh, léegi moom jafe na nga euh, comme localisation bi jafe na sa téléphone réer nga localiser ko sa bopp xam ko parce que man ka dem ba mu naan la des na ak yow deux mètres sa appareil bi mi ngi 3 mètres ak yow sa appareil bi mi ngi bërëb sàngam wante yow xam nga doo ko mën a gis parce que euh, amoo appareil amoo benn jumtukaay bu koy mën a détecter naan la mi ngi ci poche diw sàngam mi ngi fële na la yooyu ñeneen ñoo ko man ñi nga xam ne mooy seen liggéey am datan yéeg yooyu noonu mais yow doo ko man waaye li nga man rek mooy ñaari jumtukaay yële daal moo gën a assuré mooy soneloo ko su fekkee soriwul ak mu sone nga dégg beneen bi mooy nga effacer données yi mooy jumtukaay gi gën a wóor sax ci ñun mooy effacer données yi su fekkee dem nga ba ñàkk ci yaakaar te nga effacé données yi tey tey tey tey tey jot ci suba suba suba yow du la wàññi dara parce que su fekkee nga xam sa compte Google di nga ci mën a di nga amaat accès ci appareil bi kon loolu noonu baax na quoi euh, ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax a baax xam foofu la ñuy foofu la ñuy yemale vidéo bi incha allah ba beneen vidéo ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di jéggalu nag ci vidéo bu gudd bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.